ziar nañ leen bu baax a baax di leen joxaat seen wàccuwaay bu bu baax a baax di leen nuyuwaat bu baax di jox seen wàccuwaay wér wér di nuyu kulluum rek ku safoo wasaare rek ñu ngi lay baax a baax di ñaanal Sénégal yeen fi jàmm yàgg di ñaan waaye dawlu suñu borom yërëm leen te xaar leen te àjjanay fi daw si ñu feebar tëdd si hôpital si kër yàlla suñu borom fëgg seen bopp dootu ñu caabi féetee ginnaaw yàlla suñu borom may leen liberté ndax liberté dara dàq jamonoy mbapat bu am pikin rek mun na la see nettali A ba Z tey mun nañu seetlu père naa la. waa Idi maa ngi lay nuyu di nuyu sa man di nuyu waa Wasaare di nuyu mbokk internet yëpp di leen ziar bu baax a baax di fas yéene defar yéen émission di ñaan yàlla yàlla buñ fi wax leen loo xamante ni koo dégg dañuy xeeb waaye yàlla ñu yàlla defal it lépp luñ fi wax ko dégg kontaan ndax loolu moo ñu tax a jóg foo nekkoon. ne ci waar wi rek waar wi. fi fii fii mooy wan. waaw fii mooy Xelcom Tapissier. waaw fii Kër Sëriñ Saliou la fii la ñuy liggéeyee fauteuil yi en même temps fii la ñuy uus oto yi waaw dañuy defar ay oto dañuy defar ay meuble waaw. daal su ma moom yamul si làmb kese. xalaatuma ko sax làmb <laughs> du métier hmm. dañoo dab rek ñu boole ko ci li nga xam ne mooy suñuy activité su yàlla defee nag euh, li nga xam ne moom moo ñu fekk nii di di tapissier dañ ko doon suñuy papa suñu nijaay soo xoolee suñu famille yëpp ay tapissier lañ ñun suñ ko jànguloon ba am benn âge suñ ñëwee sax mën nañ mën nañ defar benn fauteuil ndax suñ deret la nekk. Mhm. comme naan mbër mi ngeen bëgg daa daa judd fekku si kër gi. da naan xaalis tapissier la ñu ngénte waaw. <laughs> père tey di lu ñu mën daa lu ñu bëgg a laaj lu ndaw. Mhm. mbappatu démb ak mbappatu tay ci euh, mbappatu wala mbappatu olof. waaw mbappatu olof moom lu ma ci fekkee bari na trop trop même mbappatu séeréer bari na lu ma ci fekkee. ndax euh, fii ci làmb tukulóor ci CFA. ñaan ko Gunaas ko ñu foofu la euh, Elton bëree mbapat foofu la Alioune Seye bëree ak ki nga xam ne mooy Fils Dioum bi nekkoon écrit ba Thiéras ñaari Fils Dioum ñoo fa nekkoon mag rakk lañ mag gi la bëree loon foofu. daan ko jël bu rëy moom Alioune fii ci arène Ndiamou Sarr fii la Alioune Seye bëreeg Ahmed Dem Ahmed Dem bu Thiaré xam nga bëri nañ arène bëre bëre mbapat ndax ci signature ba ku nekk naan maa daan sa morom mais comme que jàll nañ bàyyi noonu bëri nañ arène Ndiamou Sarr fii la Pam Morlo Baye Ndiaye bu Lam Sarr daan Pam Morlo arène Ndiamou Sarr fii ci arène Ndiamou saar fii la booy Bawol bu olympique bu Ngor fi la déggee daal ndax fii la fekk gastal ci ñetti at ñeent muy jël tournoi bi bu palmarin waaye bu ko booy Bawol fekkee ci ay loxoom la ko jëlee daan fi Cheikh Benja moom booy bawol booy bawol daan fi Babanaar mais Baye Ndiaye fii la ko booy bawol fekki daan ko fii ci arène Ndiamou Sarr fii arène Ndiamou Sarr super étoile fii la luxee ko ñoom Babanaar fii lañ luxee ko ñoom ki nga xamante ni moom mooy nëkkuréelu bu Lam saar mu ñëwaat fi nga xam ne mooy mbapatu Lam saar ñoom Balla Gaye 1 2 ñoom nees ak ñoom Baye Mandione Badou Fall numéro 2 mi nga xam ne moo rek bàyyi ma ñoon te deewoon ci gaal yi fii la ma fekk koroog bi ñu bërëg fii ak Garga Mbossé Modou Lo lu ko indi bundu kër fëga la Garga Mbossé parcelle moo bërëg Badou Fall yàlla na ko yalla xare àjjana moom Badou Fall rek bàyyi ma ñoon loon koroog bu Garga Mbossé dugg see euh, euh, am na benn siwo bu weex bu ñu defaloon ndox ñi nga xam ne ñooy tëgg Badou Fall du ko xëppoo dóor siwo ci suuf mu toj eh. na Garga Mbossé ñëwoon Modou Lo soo loon daana ci Modou Lo laa jëm si loolu fii la amoon ci Lamsaar fii ci Lamsaar Teera Ndiassé fi la taala ngeer ñëwee fekk fa Baye Ndiaye fekk fa senteel fekk fa ñoom fëgg la bi mu leen daane ñoom ñëpp ci benn guddi ci lañ wooyi ne ko réel ci benn ngem ci benn guddi ñu dem wooyu ne ko réel ne ko réel la ko génne ci jour boobu jour boobu taala ngeen ñoom ñëpp ci benn loxo la leen daane ci plaque eh. waaw waaw day ñëw rek taf wan la ginnaaw te da ngay xam ne lii la leen daane forum la woon gauche droite nag mais fu ne ko réel la fekkee laa ilaha illallah jour boobu Paul lañ ko doon wooyee ñu ne Paul la ñuy wooye ndax moo ci man dara bi mu ñëwee ci biir lan gi la sumee pantalon ñu aal sër mu ngemb diwa suuf si ñoo taxaw na na arbitre sifflé ba mu ñëw da ko dëbb ndax taala ngeer daw di def contre attaque pour pala ko sa waay def mbot ko deuxième mbot deuxième pied waaw jël bu rëy ko daan euh, fële nga xamante ni moom mooy caare géej gi ceere njaayen fala Ousmane Law bu zap daane woon Cheikh bu caare fala saaku ciment bari woon ak Ahmed Dem bu caare saaku ciment bu caare caare sur mer ndax léegi le rek caare sur mer dañu daan bëri seen biir luur bu trésor bi nekkoon ci Tyson Junior fa la ko dem daane fii nga xamante ni fala la Zallo bëre woon ak Xarim Ndiaye terrain bi nga xam ne mooy eh, bi nekk fi nga xamante ni amatul eh, te eh, kii boobu ni ñu ko waxatee arène boobu amatul léegi waaw foofu la Ahmed dem daane woon luur bu trésor bari na ay mbappat yu ma la mën a wax yoo xamante nii bu ci nekk rek fii nga xam mooy arène ñoom fu saar fii la rëgle lu ko ndax caalaan tey ñi daan tëgg làmb si lañ leen daan wooye wàccaalaan ñoo ëppoon mise bi ñu daan teg ci ci xaalis ndax boobu soo déggee cinq cent mille dañ daan rëy ndax boobu temps yooyu ay ay nagu soixante quinze mille nagu quatre vingt mille lañ daan teg mais su wàcc cël si ñëwee ñuy wàccaalaan cinq cent mille lañ daan teg suñ ko tëggee fii des fois ñu dem ci gàmm ko suñ gàmm bala ñoo gàmm dañuy teg ñetti fan def poussière def raw gàddu def poids lu poids laissé rëg rëg di bëri ci luur di bëri ci di bëri ci bëri ci laissé ba dem ko poids lourd léegi nag su gaa a ah, yi ñëwee gàmm gi jot ñu war a rey nag yi fees takk baas yi da ci naan daan jàpp mel ni ku bokk caalaan nag dem ba bokk leen ni ñuy ñaanale seen doomi noonu la ñuy ñaanalee rek rek waa caalaan. loolu waral saa bu jugee rek na am na ñu bari dem rëg lañ dem na ba mu yàgg ñu soog xam ne lébu la mais tey li ñu ngembee rëg rek waa caari sax ngembuñ ko noonu eh. dama cee xam dara ndax man cité caalaan la laa yaroo ndax écurie ZAP su ci ñaari euh, olof nekkee mm, passé wu ñu ñett wala ñeent ñu des ñëpp ay séeréer lañ waaw man euh, euh, séeréer loo ma ci wax ma ma loo ma ci jëyee ma fay. maa la wax loolu. waaw tontu ba waaw mais loo ma am mbapat boo xam ne. Mhm. dafa yàgg na mhm. yàggut. Mhm. bu dee si ñun yàgg na. bu dee si yow yàggut. Bac Seras Xarib Diallo. sa maam Jogomaay tëggoon ko. waaw loolu mi ngi amoon fële ca Pikine. teena daaru daaru. keroog ndongo lañu tuddee làmb ja an jógee place Assis Ardo fële nga xamante ni moom mooy tëli bu mag fe daan jaay tisi ci tël euh, fi nga xamante mooy Marzeng foofu Assis Ardo mooy Abdou Aziz Diop moom tëggkatu làmb la woon su ma tuddoon moo moo tëggoon Xaadim Ndiaye 2 ak euh, Malal Ndiaye moo ko tëggoon euh, bi ñu ñëwee ci grand place ba heure bi jot moom tudd woon ko su ma jumal Aziz amoon na ci drapeau ndongo la ñu woon drapeau bu mag Ndongo Lo bi mu ñëwee ba ba ba def remise de drapeau bi toog dañ ko jox micro bi mu fekk fa papa papa Ndiaye ay ndimb ak ak bu ci bolo ak Cheikh bu sëñ Babacar ñoo ko doon aw. Xaadim Diallo jour boobu baat baat ak tontu la ji ndax Xaadim waaw ndax Xaadim mi ngi bëre supporter yi sax ñëwuñu ndax xalaat nañ ne su su daanee bàcc sara wala bàcc sara daan ko du ñibbi ci jàmm moo tax bi nga ko daanee jaaru ci bunt bi. arbitre xaaru arbitre ñenn ñi ne ba léegi ñu jël am na ñu jël am jël am na daa gaaw. kenn xaaru fa ñun ñi ñëpp bi bàcc daanoo parce que mosuñu koo xalaat ñun ñëpp ku ci nekk naa ut foo jaar. am laa ilaha illallah dañoo toog jaa gis euh, euh, maanaam euh, xam nga jaase suñ ko daase ba mu weex day mel ni ay seetu <laughs> gars yi ku nekk ut foo jaar. <laughs> jamonoy sàmm ngoo ñi ñii dañoo yëkkati baas bi jàll ñii xooti baas bi jàll ñii jaar bunt bi am ñoo xam ne dañoo jël chaise bañ toogoon yenu ko pour bañ xeer dal la ñu daw làmb ci tas. xam nga caar euh, euh, Guinaar Rail bu njëkk ak Pikine dañ daan def euh, AS Jokko AS Guinaar Rail Manko ku ci nekk da ngaa indi mbër Bacceras Manko moo ko daa indi Aliou ak Nguer ak Yoro Baax Yoro Baax moo doon présenté ak waa ki naatang naatange moo nekk Jégiraay Ah, non waa jant bi ak euh, Jokko waaw foofu la yoroo baax bu rek mbappatu mbappatu euh, nawetaan ci loolu yoroo baax bu rek euh, ki nga xamante ni moom mooy Bathie Seras koroog Maxime Bergane moo doon arbitre combat bi koroog bu ko yoroo baax plaqué ci dafa wër si Bergane jaar ci taan bi taxaw ci kanamam waaw ci poqutaan Maxime Bergane bi la jaar dañ ko plaqué daan ko yoroo baax taxaw Max jël loxoom pour yëkkati ko mais bi Max yëkkatee poqutaan bi Max bàcc bàcc ci poqutaan Max ba taxaw jàkkaarloo moom ak gàttaay bi Max wàcce loxo bàcc seeraat laa ji tas <laughs> keroog ba léegi kenn xamul kan moo daan. <laughs> ñi xam nañ ne bàcc dañ ko dañ koo daan mais euh, bàcc nga daan ko ci banlieue bi. Ah. loxo adversaire am kenn du ko yëkkati. da nga ñibbi kay ñu ne diwoo daan mais drapeau tamit doo ci jot. ndax gàng gi mu yoroon. lenn moom soo ko masee soo ko ëppee doole nga dàq koo bëre. Euh, soo gisee ay supporteram doo ko ñemee daan. seetaan naa ko moog dàll bu Papa Kane numéro 2. dàll non dàll bu Caaroy. waaw Papa Kane numéro 2. mu ngi voyagé léegi sax bàcc seeraat daan ko ci ay seconde te boobu dàll mi ngi toll ci ay cent vingt bàcc nekk ay quatre vingt cinq quatre vingt ci arène li mu daan bëree mbappat bëree ko arène. bàcc euh, non boobu seetaan ma ko Omar ak ak ak Modou Lo laa seetaan boobu mi ngi nekkoon le treize avril deux mille six ngaraaf moo ko tëggoon. bi nekk AFP bi nekkoon AFP xaw ma nga fa ba léegi leen de tëgg saa ak ngeer bu zap mais ngeer bu zap ak aar mu kajoor mujj ñu bëre parce que bi Modou Lo di bëre ak euh, euh, ak Omar jour boobu man maa ngi ci biir géew bi booy jinne bu Fallaye Balde bi nem euh, États-Unis léegi bëri na fa ak saa kajoor saa kajoor mbot ko mbot deuxième pied waaw léyti bi nekkoon ci ñun moo bëri premier combat bi ak Pape Sine syndicat bu numéro 2 bi nekk syndicat mhm. loolu comme tey ci man xam nga euh, léegi la rek mais bu njëkk làmb tournoi dama koy seetaan ba mu jeex lépp mu dama koy jàpp Assane Diouf tamit dem naa fa waaw Assane Diouf fekk naa fa mu Lo ak Tyson 2 waaw ñu bokk ñu bokk benn benn làng mais dajawuñu jour woowu mbër muñ fa indi Tyson 2 moo ko daan moo ko moo ko daan benn booy bi ñu wax Ousmane Lawbe dëkkoon campement ngee xox daan ànd ak Fadiga Fatick ma bu kaam ñoom sele mi la waaw boobu ñoom sele ay xale lañ sele daan na ñëw suñu équipe ay xale bi mu nekkee xale ak euh, yeneen booy ak ñoom Ousmane Gandigal Ousmane Gandigal xam moo ko Dakar moom Ousmane la booy daje nañ quatre fois waaw Ousmane Gandigal ñun ñiil benn yoon Ousmane Gandigal daal ko benn Ousmane daan ko ñaari yoon benn Ousmane Ndiaye euh, responsable politique bi nekk euh, Somone moom lañ tudde woon drapeau bi ñaari Ousmane di bëre ñu tuddee parrain parrain bi tudd Ousmane Ousmane la normalement. juróom <laughs> te ñoom lamb bëri door la def. waaw mbappatu bëri dóor la def. waaw euh, ci la Ousmane jógee euh, Gandigal ñëw écrit waalo maama maama ba yor ko ci la bëreeg booy bari daan leen moo tax euh, lamb keroog bi nga xamante ni bàcc seera kii ni ko waxee Balla Gaye 2 di bëreeg Tapha Tine fa ma fa la ma fa la ma fekkoon. juróobu benn gaan bi ñu wax Amet Ndiaye Aset Assane Diouf la woon ñu bari dañu defe ne Assane moo ko tëgg Amet Ndiaye moo ko tëgg waaw tournoi télé ba boobu ñu ngi tegoon ñaari Samsung bu ndaw ak bu mag temps Samsung bu mag gi mi ngi jar deux cent soixante mille bu ndaw bi jaar deux cent soixante mille ba euh, euh, Balla Gaye 2 bi muy ñëw dafa ànd ak Elton ñoom Alioune Seye 2 ñëw euh, bi Balla Gaye ñëwee sumi kap bi teg ci kaw bi summi pàcc bi teg ci kaw télé bi summi tiset ci kaw télé bi daal di ngemb Tapha Tine jour ngi sol ngemb lu weex ak yu xonq yu rouge yu montante yu xaw a guddi yi ñu ne ko kee mooy Balla Gaye jour boobu Issa Pouye mais bi ñu ñëwee ci eh, RFM Ahmed Ndiaye dafa bindoon benn liste xool favori yi nekk ci banlieue bi ak ak ak ak Dakar lim leen ne ñii dañuy bëre ci làmb ji ñu lim eh, Issa Pouye lim Balla Gaye te Balla Gaye ak ak Issa Pouye seen combat waxaale woon nañ ko. seen premier combat mhm. moo tax Issa Pouye ñëwut bi mu ñëwee. Balla Gaye di daan ni euh, euh, Tapha di daan côté bi waaw jur woowu Ibou Fall booy rëbës moo daan fëgala fëgala wu lamsaar euh, su ma jumul ko botti sax ndax fëgal da ko riñaan Ibou Fall reculer quatre pas ba war a egg ci saaku yi dóor tànkam ci benn ci benn saaku bi daal koy gàcc mboj fëgal ci ginnaaw saaku bi la la la daanoo jour tamit Elton ma nga fa moo moom mooyoon Balla Gaye de finale Balla ak ak ak Tapha nag seen combat bi am na ay ndax ñaari jël la ñaari jël ci benn ngoon la mais yëpp dañ ne Balla Gaye daan mais biñ ñëwaatee Balla Gaye da koo daanaat ndax biñ ñëwee euh, ñoom ñu ngi daje demi final demi final nee na daje ndax Alioune Seye mi ngi da moo dajante ak Balla Gaye final Alioune Seye 2 waaw bi ñu bi ñu ñëwee Balla Gaye def demi sélection daw du ko xar comme ni def Ousmane Diop bal tafatin mbaar bi mu koy mbaar sa sa waay yenne ko tuur ko léegi bi mu jógee Balla Gaye fi mu toog ngem bi taq suuf waaw léegi ñu ne comme que kii daanu na ki ngeen moom taxasu nañ bëriwaat waaw biñ ñëwaatee ci la ko bala Gaye soo ko daan waaw mu nekk ay combat yoo xamante nag combat yu riche la woon mbappatu gi mbéy gee tamit fekke naa ko Fass Mbao 72 heures mbéy gee cuuj bu Kaolack fa la ko fala la fala fala fala la daanoon cargo bu mbéy am na cargo bu nekkoon ci mbéy gee nekkoon 140 kilos cuuj bu Kaolack bi ñu tefee tirage ñoom ñaa ñu daje mbéy gee ci géew bi ne lii da jaaruwut ndax ni ñu ëppantee cuuj ko mën naa bëri ak moom xamul cuuj <laughs> oh. cuuj na ko mën naa bëre moom mu ne hee kii su gaañee man maay faj ndax maa organise affaire yi cuuj na ko su ko gaañoo jaru nga may di faj mën naa bëre ak moom arbitre siffle rek cargo bu mbéygee daw daw sol ko naax léegi cuuj dajale ko bi mu ko dëbbee naax cuuj rasu daw génn saako yi boobu mi ngi mi bëgg mu dalaat ci kawam mhm. bi mu dalee ci kawam cuuj dóor ko cabaxal wéeru ko sawaay waay dindi ko mu daw palaaka ko cuuj remplacé jël triceps bi taf ci kawam rek dóor ko mot làmb ci tas mbéygee jël micro bi naan xale bi fan la dëkk woo leen ma ko ñu ñëw mu ñëw waxtaan moom ñu continué waat tournoi bi. Euh, Naar ba muy jël tournoi bi fa la fekk Naar Touré waaw ba muy daan Mbengue Junior Mbengue Junior fa la bëreeg euh, Omar Mouma. Omar Mouma bu Guédiawaye euh, arbitre dafa soufflé Omar Mouma ba bees ak gardam maanaam bàyyi loxo ci suuf arbitre arrêté waat na looy def nii mu ne ko souffleel mu amoon mu ne ko souffleel mbéy tëb rek sàcc ngembali Omar Mouma aj ay loxoom na ko mu ne mu jàpp ñaari loxo un moo ne ko jàpp ginnaaw ngemb genn ngemb la ca la ñóot na tribune nan ngeen bëgg ma daanaka mbégeey junior foq la ba dee nag ñi mee ko ñaari ngemb mu daw di xar jëppan sa waay récupéré tristesse bi booy ñaar moom daan ko jël bu rëy mbégeey jëlatu micro bi ne làmb ji nag daa am ay jinne ndax cuuj gën ñu naan déet ñu gisaat moo boo xamante ni mi ngi bëgg rey nit ñi na xay xale def ndànk ndax fii ay champion fi juróom la amoon moo xes fecc nag nekk boogaa nag ci la ñëwee moom tamit dem dem final xuma kan moo ko génne fekk fa la ma fekk tamit ba Sa Thiès di bëreeg ñaq jariñu ñaq jariñ di ko daan demi final. waaw di ko daan waaye ñaq jariñ it ba muy dajanteeg euh, kan jour boobu ñaq jariñu su ma jumul kii moo ko daan Cheikh Junior. Cheikh Junior wala wala wala Boy Niang daal am na ko ci daan parce que ñun demoon nañ demi final benn boy bi ñox Amadou moo daan. Issa Pouye numéro 2 bu taala bu bu bu bu kii bu bu Thiaré ñoo Mer ñoo euh, euh, kii ni ñu koy waxati Cheikh Junior Cheikh Junior daan ko mu de non euh, ni ñu koy waxati Cheikh Junior ak ak ak kii dañoo daje ak ak ak Modou Gueye. mooy mooy kii. boo Niang dañoo daje demi final ñu mayante waaw ñu mayante mais foofu nekkoon ay làmb yoo xamante ni soxla nañ ñi fi nekk tey ñu tëggaat làmb yi mel noonu te am sécurité nag. mbapat yooyu dina amati. moo tax yenn booy da ngay ñëw gis ba ci biir làmb gis ñoo am ay erreur ay défauts yu man bu njëkk su ma la entraîné ba ma xalaat ne yow mii mat nga war ngaa dem aren duma la yóbbu damay jël suñu ne tey fan moo am làmb ñu ne géejawaay am na wala mbappatu kër Mbay Fall wala mbappatu Tëngéej dañ fa daan dem mbappatu Tëngéej fala la usa bëri woon ak ak euh, kële kii ni ñu ko waxee am na neex bëreeg euh, Issa Pouye kela Issa daan waa Tëngéej yëpp war a yóbbu coupe bi Pala Mbengue ne ko tey mënoo yóbbu coupe bi dem ba beneen yoon fala la ma fekk. <laughs> mbër yëpp mbër yëpp mbër pi nga yëpp la daan ñoom commissaire ñoom a neex benn guddi leen daan sama kanam comme ci jàpp sa ngem moom da ngay xool foo daanu Issa Pouye maa fekkee loolu waaw dem naa mbappatu asalem saalum saalum dugg si Mbengue junior dugg si am Ahmed dem dugg si saalum jël micro bi ñu ne waa saalum di bëre la lay doy micro mu ne mbokk yenn rek laa leen xamal Mbaye Guèye junior bi Mbaye Guèye da koy yónni pour mu ñëw fii HLM pour toroxal ma waaye bisu tey bi du ma daan. Saalum Saalum wax lool na na na na kii bi na ñi nekk ci banc bi ñu yor tirage bi boole leen ñun ñaar jaru ngeen tirage. Juro dañoo bëree bëree bëree lu tollook ay di combats romb nañ te ñoom ñaar seen combat teewoo Juro dañoo dañoo dañoo dañoo yëkkat seen loxo ñoom ñaar ñu génne leen tirage bi. su ma non dañ leen pile fii tête lañ leen defal Saalum kii euh, kii kii gagné. Euh, euh, kii daan gagné euh, kii ni ko waxati Mbégue Junior gagné dajanteeg Amady Amady Deme daan ko Amady Deme moo Zuro moo jël final bi. Ousa Eumeu Sène. Ousa Eumeu Sène. boobu làmb jooju moom seetaanu ma ko boobu fekkoo ma ko seen arène laa fekke seen seen arène mais dégg naa nag seen combat boobu moo togg combat arène ndax bi ñu bi ñu bëree su ma juum Ousa daan ko sëñ Mour Niang teel dëgg seen combat arène man combat arène balaa. Ousa da kaa daan mbapat sëñ Mour Niang tëgg ko waaw. après ñu dem ama seen mbott ko mbott deuxième pied waaw. Ah. Mhm. Khalil mi ngi noonu kookoy Père Zalba nga lim fi jot a décorté ci lutte simple. Mhm. lutte traditionnelle bi mu jaar yoon tam ñëw nag ci combat bi ñu jëm la le cinq. Mhm. maanaam dimanche. ñaari xale yëpp loxee koo sa keppaar. muy Reug Reug bu Caaroy ak Sa waaw xam nga ñoom ñaar bokk ñu ni jàng bëri naa am lu ma leeral. Reug Reug bëre njëkkewul lutte simple. ci bëre dóor la njëkki. ndax keroog bu ñu bëreeg Kirinton. ba muy bëreeg euh, Boy Niang ba muy bëreeg Alioune Seye Junior boobu demagul woon euh, Mbapat ndax dafa ñëw bëreeg Kirinton combat bi am ay litige mu def recours ne nañ mu def recours ñu def sans verdict ay mbokkam dàq na koy surtout Papa nga am loo xam ne waru la da war a mën a bëre mu dem ci Mbapat yi di mbappat di mbappat ñu toog lu yàgg gisuñu ko ndax ñu caare yi Cap Vert ak Ikirisab man rëg-rëg li lay wan ne booy la man miinu ko. mais ñoom Ahmed Dem ñoom Thérèse Ndir ñoom Sew Diis ñoom Mor Nopp ñoo ñëpp sama loxo lañ loqi ko bi ma ñëwee ci saal entraîneur u Thiaré Café ma ne ko man man ca seen mbër bi di Reug Reug mais man xàmmee ma ko ci booy mu ne ma am na cinq booy yu ma daan berte benn boobu benn booy borom boobu bu rëy bi ma ne ko ah mu ne muy Reug Reug noonu laa ko xamee <laughs> Zal moom wax lool ma ne ko d'accord ma ne ko tam ñuuloon ni mu ne ma kooku te te te te kii rek papa ji eh, xaw nan kan daan jàpp ci loxo bi ko indi foofu ma ne ko ah non na keneen kuy yor ci waaw mu ne daan yor ci loxo mi suñ masaan ñib muy ànd moom di ñib mu ne ma kookoy rëg-rëg ma ne ko man dama ko xam xamul ci booy mu ne ma xam nga ko de ah da nga koo fàtte ñoom Ahmed dem ñoo ko mag mais mu mu bëri combat yi combat am ay litis mu dugg ci àll bi dem fa lëlu fa lëlu kenn kenn mun muntu ko téye moo tax euh, Idi entraîneur yëpp laay waxal ku ci jàngal sa mër ci ruq di ko jàngal di ko jàngal ba def na sa kuy màgg na da nga dem essayé ko ci mbapati su amee ay défaut mu rectifié wu foofu mais tëb rek jël mbër rek dem yóbbu ko ci arène bi kenn du ko def moo tax des fois da ngay gis mbër mu mënul léewtoo sax dugg arène da ci am da ci am soo gisee maa di Lem li mu bëri nga xam ne daa jàng bëri euh, dóor tànk padd njiin bëreetut dee det coup de fil dóor tànk wër ndomba Euh, dafa gala jaane xale bi loolu la ñu ñun dañ lay jàngal ne la su fekkee danga ngaa bëgg a dóor da ngaa war a mbot waa ji góos da nga yóbbu xel mi droite loolu la def ko dóor tànk booy bi xel mi dem ci droite bi mu daw dóor ko naax booy bi yaakaar ne maat da koy dóoraat tànk mu mbot ko mbot deuxième pied moo tax bi muy dem mbooy bi moom xalaatan ne moom xel bi yëpp fa la war a nekk waaw loolu la ñu naan gala jaane da ko dóor tànk ëma seen noon la noonu la mbottee usa usa da ko padd til Usaadi xel ki ki eh, xalaat eh, padd bi mu dóor ko eh, mbot daan ko jël rek Lac de Guiers sax bokkul ak booy ñi ñuy padde hmm. Lac de Guiers pour nga rëpp pour mu daw waroon dama mais ñii double action la ñuy def padd dóor ca baxal padd bot loolu ndaanaan dëgg koy def foog nga osé mën koo def waaw wala nit daw di jël sa tànk nga ko padd mu rëpp comme Yékini ak Gris Bordeaux wala nit nga mu taxaw ngeen di nga daw coup de fil ko dóor ko tànk da wër ko ndomba ku osé wul mënoo koo def wala nga jàpp nit maneel ko wala nga jàpp ñu daw sàngoo euh, euh, loxo yi daw daw bëtt ko riñaan ko yooyu foog nga osé yooyu yooyu da ngay dem répété ko ci ci mbapat yi suñu lay daan garaawut mën ngaa demaat ci beneen dëkk wala nga dem suñu la daana ci raw gàdd nga dem ci poids suñu la daana ci les nga dem ci a doon dem ci raw gàdd yeeg euh, poids demee say morom kenn loo daan suñ la fay daan premier tour wala nga dem ba mënatuñ laa daan premier tour ngay dem deuxième tirage wala ngay dem ci dëkk yi nga xam ne dañuy fanaanoo nga ne tey nga mbëri suñu mosaan dem ci àll bi da ngay ñëw ñu ne vendredi samedi dimanche mbër mu dem fanaan rek da ngay woote Dakar ah yàlla def na man tay fanaan naa tey mbër mu fanaanul rek doo bokk ci xaalis mais soo fanaanee da ngay ñam ci xaalis moo tax am na woyu séeréer yoo xamante ne heure boo ko déggee ñu fekk na la ci yow da nga ci xaalis mooy woy final waaw ah, waaw heure boo nekk ci ci biti làmb ji ci biti nga dégg woy wa ñu ne la kan a kan nekk ci déw ñu ne Idi Saliou ak ak caméraman bi xam na Idi na ñam ci xaalis xaw ma ñaata lay doon na waaye na ñam waaw waaw <laughs> woyu final dafa am woyu premier tour am woyu woo xamante ni làmb ju tëwoo la nit dina ne ci biti man tey su làmb séeréer amoon fee su ma toogee dégg wooy naa xam ndax làmb ju daa tëwoo am na combat bu fa tëwoo wala ñu ngi ci final wala làmb ji day soo ko sàcc ah, waaw donc waaw yàgg waaw yàgg xam moo koy def <laughs> même même wooykatu olof yi mhm. su lañ man ngi daan def mi ngi ci ñoom tey soo toogee fi arène nationale tëgg fële tey su làmb tëwoo war ngaa toog fii xam ne kat làmb ji tey dem nañ mi-temps fii ngay tool di ko xam bareetu déedéet ndax dangay toog ba ci yàgg rek làmb commencé ñu ne bàyyi leen yaaba ci tellaala det loolu heure boo déggee wooyu daa war a nekk làmb joo xam ne ni ah mi dem nañ mi ku nekk naane ne ndox ñu ñëwaat foofu war nga ko ah, woykat bi war leen conseiller ndongo la daan dugg ci woy daan dugg ci ci ci mbapat làmb tëwoo muy woy ta du arrêté woy géew bu tas mu organisé waat ko te du arrêté woy laa ilaha illallah amatut amatul laa illah amatul moo tax euh, des fois da ngay toog ci làmb ji dégg benn woy day métti sax sa bopp barke yaa rasulullah day métti sax sa bopp <laughs> amatul amatul billahi wallahi da ngay métti sa bopp ah. man euh, idi man làmb euh, la ci def xaaj ba joxuma ko dama naan tëdd sama néeg làmb amut walla ñu ne làmb ji dem na vacances dama yor benn kii boo xamante ni benn kees boo xam ne lépp ay kaset la su ma déglu son làmb ay woy woy séeréer maa ngi déglu Duut Seck wala ma déglu Nabou Yaakat wala ku mel ni Ndeye Ngom Bambilor wala ku mel ni Xaar Mbay ma jaaga nga xam ne làmb ju mag su amee ci suñ ñëwee lu tolloog dix mètres ñoo topp ci ginnaawam ñu sot woy wi genre woy yooyu laay déglu mais léegi woykat da ngay gis su la benn woykat ñëwee di la aw sax nga bëgg koo siis làmb euh, euh, làmb ju mag woy yi dañ koy sot bàyyi leen li euh, ñu koy waxati bàyyi leen yaaba ji te laale soo làmb jigéen sax jeex na loolu góor lañ koy wax soo làmb jigéen jeex na soo dee góor war ngaa nekk defi yu góor waaw ñi ci awla lamb la làmb ji euh, euh, saf neex xajam làmb day xajam idi làmb wërta set gis nga combat Reug Reug bi ak ak ak Sa ñu bari ñu ngi wax naan booy dañoo war a bàyyi violence du violence làmb ju nar a neex ci signature ba lay feeñ. signature ñu gis ni mu mel. Mm-hmm. parce que man mii sax jot naa see tëmb si biir piscine bi. waaw waaw hey pël bu lab yàlla ci yàlla musal <laughs> pël xamul ndox pël la <laughs> pël bu lab musiba la. moom séeréer la ah eh, déedéet du ko séeréer de. Saliou <laughs> Ba. père signature bi bëri woon coow trop. Mhm. yaa ma sotti wu ma la. Mhm. looloo tas signature bi. Eh, soo xoolee ci ginnaaw li nga fekkee xool signature yi fi amoon problème yëpp. lamb ji yëpp réussir. mais lamb joo dem ñu naan maa ngi ñaan sama adversaire. yàlla ko yàlla may jàmm ba jour ba rek incha allah làmb ju neex da su arbitre moo la fi bàyyi nga koy wax sama supporter nga teel leen libéré rek comme Ama Baldé li muy def Balla dañoo mën làmb su arbitre ñëwee même suñuy daanu Balla Gaye Balla Gaye numéro 2 même suñuy daanu doo xam ci ñoom dañuy ambiance ñoo yëkkati tribune bi ñoo wax ak adversaire am son maanaam joxoñ ko gàllaaj yi xam nga euh, ñu bari dañu fàtte règlement mën ngaa ñëw ëf ko sungu si nii xëpp la ñu bañ su fekkee dafa am loo koy jël nga jël ko ko bu mu ko laal su fekkee am na loo jaar ci yàlla mën nga koo def may na la ko l'essentiel bu ko sànni maanaam bu ko dal su la neex nga jaarale ko ci yàlla yi su nekk amee loo koy ëf benn sunguf wala dara bu ko fekkee bëgg nga wala ëppal nii mën naa dem da xool fu ngelaw lu jëm rek nga jàkkaarloo moom gars yi duñu su ma ñëwee sama mbër xool ne la sunguf si loo koy def nga ne dama bëgg jëri nga jëri mu ne man la da ngay dem woon côté bële soo dem côté su ko ëffee da koy dal ngelaw moo ko yóbbu ci yow te doo tooñ waaw ëf ko voilà comme doo ko waree sotti xaleel ngelaw lu jëm ni fu ñu rek laay def mu dem ci moom mais soo nekkoon nii rek arbitre dañ lay sanctionné ñu bëri booy bëri xamuñu loolu waaw dayo combat mhm. mhm. ku ci nekk mën ngaa daan sa morom mën na nekk combat bu yàgg bu gaaw prix dip mën na ci am waaw waaw mën na ci am ci kan ci ñaar ñëpp xam na moo tax dugg na géejewaay lu bari. Mhm. Sa Thiès tamit dugg na caaray lu bari. waaw xam nga li ma tax mu mën a nekk trip dip ci seen waxin suñ ñu wóorul. waaw seen seen dayoo seen entraînement ak fi ñu toll ci ñoom ñaar ndax euh, dem VIP yomb na waaye toog faa jafe. te dugg fa dafa jafe te ñaar ñi ku ci daan dafay dugg. Euh, léegi dañoo commencé xam ne ci face su face yi. ak ci biir làmb yi la yóbbu VIP ci la bokk kii nga xam ne moom mooy Boy Niang tey la moo tax mu am Modou dafa menacé Balla na ko dañuy jëflante ma ak yow ba ma la daree laaj du tey ma ñëw nga tegal ma sa rakk ma faxas ko duma la may dara tey su wóoree ñëw daan Balla Gaye ak manière ba mu ko daan te yàggul moom looloo ko may tey mu egg fu mu egg ma ni na nga làmb na nga na ngay waxee moom ngay jëfee waaye nanga waxee soo ko jëfewut dañ lay baax. kon saa ci ni ñu waxee nii nii. suñ ko def suñ ñëwarut. barke yaa Rasulullah làmb ju yàgg ndax duñ ay mbër yoo xamante ni dañ duñ def kële bu wóor ay teg-teg nga dindi ñu tabaxal mu deñ nga dem defi la day det prix dib la ñuy def ñoom ñaar ku ciy def action day day leer te kaaw mën na ci am. ñoom ñaar si xeex kan moo tere si xeex. Reug Reug mu ko na rafet xeex waaye Sa Thiès mën naa mën naa dóoram ba dem ñibbi te doo fay bokkuñu ni ñuy xeexee ay crochet lay dóor. crochet chaque instant mënul dur nga daanu mais su fekkee dañuy taxaw distance di benn bennal Reug Reug mooy avantage te Sa Thiès mënul loolu. Reug Reug xeex. non bokkul dama ne la suñ taxawee ñoom ñaar di benn benn loxo taf indiwaat taxaw. Hmm. dem na taat dem gauche arrière avant dem dem gauche loolu Reug Reug moo ko mais Sa Thiès su tiflee ñaan def nii ba ñëw sa kaw dugg sa garde soo méttul la nga mënoon koy fàtt. la nga mënoon da la nga mënoon da koy fàtt ndax day jaxas ak day dugg sa garde jaxasa la Sa Thiès ñu gis combat yi fi ji fi jàll diggante mag na ko réel diggante mag Boy Ngaay diggante mag Zarko erreur yooyu muy def est-ce que bu ko defee si diggante mag rëg-rëg dina ko non xam nga dafa am benn comme li ma la rek Sa dafa am combat bi temps ci ginnaaw bu mel nii maanaam benn examen boo xam dafa war a dem cours des tey su daanoon Boy Niang rëg du ko sax seen bay daj ak moom waaw xam nga am na erreur yoo xam ne boo koy def ci biir làmb day fekk rek amoo adversaire potentiel bu tolloog yow adversaire am doon juum ak Boy Niang bokkuñu Boy Niang soo soo ko juumee tuuti du la pardonné parce que xam ne combat soog la ku ci juum sa morom da lay daan bu jéggi la doo ngay soo comprendre rëg-rëg rawatina rëg-rëg mi tey mbëru mbapat yoo xam ne mbëru mbapat su gisee ci jum mooy loo seen say tànk moom la maa la wax li mais nag tey dama gis poids bu diis trop ci kaw ñoom rëg ci rëg-rëg maanaam poids bi mu jël baax na wala ci kaw gi ba mu ëpp. am am ay avantages yu mu am ci biir combat yoo xam ne tey ko tey ko éliminer. moom rëdd moom rëdd. comme lan tey imaginal tey ñëpp ne nañ tey Reug tey war na waa làmb mooy lan tey jël jëli na Sa Thiès Sa Thiès tey gën a tële tey ko jël si lim gën a mën mooy dem tey Reug Reug ne tey jëli na Sa Thiès na tànk ma téye. képp ko képp ko daal di dawal loxoom ci ginnaaw ngembale lu Sa mën a mën a bëre mi ngi ci danger taxul na yaa daan nag mais Sa Thiès forum yëpp moom mooy mu dem jëli la. xam nga Sa Thiès xam nañu la. Hmm, attaquant boo ko boo boo boo ko marqué ci militaire na la dugalee. làmb ñetti camp la sa camp bi ngeen bokk ak bi sa adversaire Sa Thiès bëriwul lu muy bëre ci biir camp am ci camp adversaire la ëpp lu muy bëre tey soo ko fekkee ci biir camp am moom te xamu ko nu muy def xam am na ñu ko am na ñu ci daan mais du Reug Reug Sa Thiès tey mu recevoir Reug Reug ci biir këram. du du combat du loolu. kon su ma déggee lu mu tuuti tuuti lu mu génn mooy avantage am. tey këram tey dafa war a tëj buntu kër gi tëj fenêtre bi caabi la ma ko. dem dem kër jàmm dem ba la jëf loolooy làmbam. est bu ko bu demee kër Reug Reug. waaw lam fay fekk. waaw lam fay fekk nag. Reug Reug ça dépend ci na Reug Reug di bëree moom. Reug Reug mën na recevoir sa waay xaar ko. waaye xaar Sa Thiès su ma doon Reug Reug it du ma nangu Sa Thiès fekk ma sama kër damay daje moom ci digg bi. mooy avantage ndax gis nga mbër tey ci làmb ji Reug Reug kii euh, Sa ñi gën a mobile ci cent vingt ci la bokk moom rek nga gis mu taxaw benn place prier taxawaat fi mu taxawoon amul kenn ku ko fiy def luur bu mobile da ngay mettre mu dal sa kaw ndax su ne runkum sa kaw bala ngaa jàpp di làmbata ut fooy jàpp mu def rotation def def flexion mën ngaa euh, toog mën ngaa jaaxaan ma ni luur bu mobile da ngay mettre mu dal sa kaw da ngay dem jëli ko bala moo jàpp nga jàpp xam nga Reug Reug tey moog Sa Thiès avantage yi ñu amante ku ci ñaar ku ci nekk sa morom bokkut tey Sa ci diggante bi arbitre sifflé la tànk bi jóge ci camp bi di dem ci seen camp bi ñu bokk ak camp adversaire am foofu la avantage am nekkee mais heure bu demee ci camp adversaire am fexe ba rëg-rëg am benn ngem moom mu am gem day dugg ci foor rëg-rëg dugg ci fort rëg ndax rëg-rëg ñëpp xam nañ ne champion d'Afrique la nekk koo xamante ni euh, euh, euh, ki ëpp lu mu jël ci lutte simple Sénégal ci la bokk tey soo jaxasoo ak moom waxuma da ngay daan de waaye du yomb. waxoo day daan waaye mu daw la loxoom ci ngem daa am ndoxto. yow xoolal ñu xoolal xoolal xoolal nu dajee Gris 2 te te te te Gris 2 euh, euh, Sa Thiès daa ko bëre te Gris moo gën di euh, Sa Elton Elton ñooñu comme que Reug moo jàpp se ñaar ngem dajale leen ba mu baax mu xool fi mu leen daan waxatuma la ak kon Sa Thiès war naa fexe tàggoog Reug Reug bala moo jàpp. tey yow boo yoroon Sa Thiès waaw war koo yóbbu mhm. ci Reug Reug waaw nan nga ko yóbbu li ma koy wax mooy na xeexee ko ragal na na na bëre ragal mel na ku ko ragal fekk ragaloo ko xam nga ñëpp dañ ne la ba sa waay wax na ko sax Xaadim eh, Njaay dégg naa mu ne moom moo xamul lu ñu war a def mais moom xam nañ li mu war a def kon ñëpp xam nañ ne moom attaquant la da leen da leen da nga leen da nga leen wor war gi mooy lan at bi ne prime ngeen ko tëf ku daaw génn a taxaw sa place mu ne waat ni nga ne ko tëf ko ba xel mi dem ne kii kat xeexu ko indi nga jooyal ak moom loolooy wor ci làmb fañ lay xaar wala faa ñëw. mooy li père Max dañ nga fit. nga fit ma ngoog làmb da ngay war waaye ñi waa àdduna bi yëpp booy booy fan si kële bi sax ñi xam ne xamuñu ne am nañ Sa Thiès moom day dem. mais bul dem sooy dem na nga galajaane waaj ba xel mi kat lañ doon préparé ak lii bokkut mbër la mu préparé heure boo ci duggee yaa yaa ngi dugg ci fooram. ah ki moom boo ko xaarloo. ne waxuma mu xaar de. comme ça dañ Sa Thiès waxuma mu xaar de dama ne la. Hmm. galajaane maanaam na fexe dóor ko ku ba pare génnaat demaat place am. mu tuuse ko mu ko mu ne waat ni mu tuuse waat ko su fayoo mu jooyaloo ak moom. daw def jargandalu da koo man heure bu jargandaloo def rotation rek rek poids bii mu yor hmm. waaye gis ñu tànk ndax tànk yi attan na poids ba ci kaw lu en tout cas lu mu diisee ci kaw bari na su jargandarloo sa waay feelu ko ci jargandalu mu fàqat wala mu benn loo ko keroog ba ko caaga fay di daan noon la ko def da ko taftafee keroog ba ko général Malika di daan dafa dugg ci gar da ko taftafee ku ko taftafeewul doo ko daan ndax dafa aay xale bu aay la Reug Reug Reug bu waree dem nu demam ci poids bi moom moo tax mu bëggatuma ko Reug Reug mu dem su jóomee man naa rëpp de ndax dafa diisee kaw est-ce que mi ngi compétir de xam nga MMA ak seen ak ak ak ak làmb euh, bariwul différence ñoom ñaar mënoo wax ne dañoo gëj compétir ñoo ñaar yam rek ñu ngi compétir parce que euh, Reug ci kan la jóge ci guy gi kee jóge ci kan ci si Moussa Ndoye combat yi kon kee mënu ko ëpp repère ci làmb ba pare moom mu bàyyi woon ko fi kon Reug muy ëpp repère ndax demoon na MMA te lay bëre dóor la rek da ngay song da ngay dóor kon saa ci ëpp ko repère te soo xoolee tey rëg-rëg suñ gusee tànk ya tànk ya xool ne àtt na tànk dina mën a recevoir ki nga xam ne mooy Sa mais suñu xoolee ne tey kaw ko dafa ëpp tànk yi Sa amul leen lu mu war a def lu dul rulé wuru taxaw fexe ba tànki jaxasoo nga soo a def action nga soog a tuur waaw waaw nit boo ko gënee mobile bul taxaw sooy xeex sax bul taxaw tef génn nga dem gauche droite arrière mel ni ku ko ragal fekk ragaloo ko soo ne cirip doo ko dajale di ay am indi am di jox tànk loxo beeg yooyu noonoo non da ngay def rotation fexe mu bouger su bouger rek dootul nekk lourd nga soo ko def action su boobaa da oyof ci yow. ñun ñaar fi ñu toll tey jii boo doon jox favori kan mooy favori. amu ci sans dépend laa ma ci toll. dama ne la tey fi arbitre di wàccee loxoom ndax pare nga idi ndax caméraman pare na prip sa waay ñaan tifli dox ci kawam dem go dem ci kaw rek ma nga commencé ci avantage bi ci foofu ci une minute deux minutes trois minutes mais buñ dajaloo ba ku nekk dawal sa loxo ngem ñu daal di ndengeeñ foofu nag ay dugg ci fooru rëg-rëg waaye terewul na yaay daan nag ay dugg ci fooru rëg-rëg ndax rëg-rëg tey bu jàppee Sa ba mu taxaw ak poids bi mu chargé nii su boobaa day dis gann ci kaw Sa Thiès waaw ndax poids bi mu yokku ni tey tey su jàppee ba mu dëgër da koy da koy jëriñ ndax Sa su boobaa su ko su rëg jàppee ci ngem li pour mu bouger day jafe combat rëg-rëg Sa Thiès seetlu nga si kaw waaw waaw ça dépend Sa Thiès xam nga Sa moo moo war a diriger combat ko Reug Reug diriger am dara. moo war a diriger su bëggee am dara. ndax euh, mbër la moo xamante ni ci vitesse am lay bëree ci vitesse lay xeexee te vitesse bi mu war a xeexee mooy Reug Reug poids bi mu def nii su xeexee ci vitesse bu bëree ci vitesse dina handicapé Reug Reug ndax ku diis ku ku am 100 kilos dam yokkute ca diis ci ci ñaari weer Sa Thiès bu ko gisee muy jàkkaarloo ci combat fii. ak bi mu yokkee poids ak léegi du lu moom da ko cee yokk kooku bala mu ko maîtriser ci biir combat bi nga tàggoog moom waaw. Ah. combat bi seen ñu mas doom suñ taxawee di mi-temps rek xam nga dañoo léewtoo distance te kenn laalante wuñ sa morom Sa Thiès dafa yàkkamte dafa am dafa xiif Sa Thiès <laughs> da koo xiif soo déggee ni ñuy waxee ak ni mu koy xoole ah. nga xam ne kii da koo mere. kon daal tey le 5. le du yomb idi lan laay wax. avant pendant après mu ci biir stade bi ci biti stade bi question bisa moom kenn du ko yàq makkan laay wax moom mi nga xamante ni moo doon bàyyam yàlla na ko làmb ji jik na fexe bëri waa rëg-rëg ak waa Sa Thiès bu am benn contact. bu ñu bokk yoon bu ñu noo sax seen mi ngi ci mais na gën a vigilant waat. tey amul géwal amul dara nag ku am sa ku nekk A na toog A ku nekk benn nekk be supporter rëg-rëg A supporter rëg euh, ke Sa Thiès euh, euh, kii B noonu noonu loolooy làmb ci parce que làmb ji soo xoolee signature bi ku ci nekk am na loo jàpp sa morom kon loolu ñaari mbëri supporters yi te ku ci nekk da ngaa bëgg ndam li tey li gën a métti mooy nga ànd ak say morom am ñu la fi bàyyi ñuy romb kat kat ji la yóbbaale nga gis sama kat ay xale ndaw ñëw di ko daan ñëw daanaat la nga ñëw sa mag tey bërki de moo njaay jooy jooy nga ñëw ak bu ko faa dugalaat du yomb tey waa Thiaré Xarim Ndiaye 1 Xarim Ndiaye 2 Ousmane Diop Issa Pouye Xarim Ndiaye 2 ñëpp nekk fu kenn musul indi roi des arènes nga nekk fi ñëpp am ci yow yaakaar Sa Thiès di la freiné idi loolu fu mu jëm <laughs> combat yërëmtalu mi <laughs> ngi noonu kii mooy Père Zalba ku ko xam na xam xamee ko l'an 2000 mooy mooy Père Zalba nekk écrit zap tey ñu ñëwoon fii seet si ko mu nekk suñu papa nekk suñu lépp Père tey ji ñu bàyyi la nga tàggatoo hmm. atam ta kàddu gu mujj waa di leen wax rek waa làmb ñun moom làmb euh, maanaam dañ koo bëgg gis nga nit lu muy nekk te bëgg ko euh, bu yóbboo mu toog te ñi nga xamante ñoo nekk ki làmb di ko dundee te di ko dundal dañ gën a jàpp làmb ñi nga xam ne nag dañuy ñëw di dundal làmb te dundawuñ ko ñu ngi leen sant di leen gërëm muy amateur nga xam ne gañoo ci dara waaw amateur mooy ñëw sañc ba sañce ba rafet yor xaalisam nga woy mu may la mbërëm daan mu may ko xaalis daal di ñibbi su lëndee mu dem utiwaat leneen ñun managers yi wala ñun mbëri su mar dañu dem jëri suñu reliquat lekk moo tax nañ ko dundal te bañ ko dunde nañ ko dundee te dundal ko bokk ak woykat yeeg yëpp làmb su fekkee da ngaa bëgg a woy nit ki lu ko neex idi na nga fexe xool lañ gën a bëgg gars yi léegi faalewuñ sax répété bu njëkk bala ngaa woy làmb da nga dem simb dem jàng ay woy dem ci ci li nga xamante ni moom mooy soirée nga xam mooy super ndaje ne ci wedd bu njëkk ki nga xamante ni moom mooy abu ci bolo ndongolo Papa Ndiaye Ayda Mbub seex bu sëñ Babacar Moussa Diouf fii ci Assis Ardo sëñ sa tabaski masaan ñëw wala korite day teg seen musique bu mag di jaay tissu soo ñëwee mu defal la playback ngay ngay jàng foofu woy Ndongo Lo soo saan dem su ñëwee suba la màggal soo demee fekk ko ci xaadir yi foofu ci tabalay muy muy muy woy soo demee simb sa fekk ko fa Ndongo Lo ni mu mënee woy musique noonu la mënee sikar ni mu mënee woy woy làmb noonu la war woy mbap euh, euh, euh, li nga xam ne moom mooy simb da koo jàng gars yi nañ jàngi woy te tarbiw te nu aw xëy rek na bisimilah ne bëgg na alhamdulilah amul fenn da ngay jàng woy nangu topp ci iddi di ko di ko aw mais xëyoo ay woo kenn fond musical baax sax mënu ko am nga ne da ngay woy da ngay gis ku jóge fële rek ñëw ci TikTok bi génn sa benn sa benn single bëgg a nekk woykat woy day metti woy woyu naqar idi day métti bopp te xam nga xam nga xam nga xam nga musique dafa fort su neexul rek day day day day métti te lu métti ciy nopp moom musiba la <laughs> père maa ngi lay bëggaat bu baax a baax. waa di wax na nag gaa yi. Mhm. na nga ko na nga ko teg nag sinon kon kon du neex. waaw gaa yi nañ ñëw ci Saliou Ba xel Tapissier. waaw photo yi bu ñu bëgg. dañ mu indil ñu ma photo rek bu ñu bëgg mën naa leen ko defaral. waaw ko am sa oto war ko aussi soo ñëwee ñu defaral la fii la ci poste Thiaré euh, en face camp militaire soo ñëwee laaj ci Zal Tapissier rek ñu wan la ko waaw jërëjëf Idi. Khalil kooku ay suma papa Zal ba ndax. Euh, dama daan yàgg ñëw si palaasam boobu mu ngi si ginnaaw fee si daral bi dama daan ñëw foofu yàgg naa fa am téeméer 1000 francs kon tey ji bu ma ñëwee fi yor micro kon dafa jot ma ñëw wax ak moom muy suma papa mu suma lépp waaw di bëggewaat ñëpp rek di ziaraat ñëpp di joxaat ñëpp seen wàccuwaay Sofi Ndour maa ngi lay bëggee bu baax a baax tey ni ma mel yow la Sofi Ndour nee loo dund doyul suma jigéenu bopp nga suma lépp nga yàlla sa jàmm yàgg Sofi Ndour Khalil droit ba kër yëm